bi ma xëyee suba def naa li nga xamante ne mooy sama devoir mooy dem naa si sama bureau de vote wote li nga xamante ni moom laa si gis mooy ginnaaw bu ñu félicité ñi nga xam mooy organisation yi nga xamante ñoo organisé élection yi muy ministre de euh, ak ñi nga xamante mooy préfet sous-préfet bi gis nañ tuuti ay manquement yoo xam am ñu parce que tey bi nga xam ne wat naa pare dañ ma signalé au niveau de xaare mooy isum xorom bureau numéro 16 ñu ne bulletin jàmm ak njariñ dañu ku ñëw doo ko gis parce que parfaitement nag d'accord bi ma ñëwee xool naa bulletin jàmm ak njariñ mais gisuma ko parce que li tax mooy dañoo jël li nga xam mooy PV bi nga xamante ne après bu résultat yi dee génn ko war rempli ñu jël PV bi teg ko ci kaw taabal bi nga xam ne ci la bulletin jàmm ak njariñ nekk jàpp naa loolu bu fekkente ni suba ba léegi noonu la demee nekku lu rafet nekku lu jaaru ñaareel ma fekke ay nit yoo xam ni ay maire yu war a wote si ñu jox ay bulletin Pastef yi nga xamante ne maanaam mooy am teg ko si kaw ni ko bii mu normal loolu jàpp naa jaaruwul fii Sénégal ñoo ko bokk rawatina Touba le meilleur ki gañ ku gañee bu ngoonee ma félicité la ndax yaakaar naa ne élection député dafa am solo mais waruñu nekk ay sabotage parce que wate na agsi nañ ba fii bureau de Wade yi am nañu fi nekk mais matul loolu tamit am parce que en tant que parti opposition mënoo ni maanaam foo nekk mën nga fa am représentant lan waroon def defal ko mooy plénipotentiaire la coalition de vote boo demee tey fee nga xamante ne mooy euh, euh, Europe fee nga xamante ne mooy Baylaat université Baylaat bureau ya fa nekk yëpp samay représentant la en tant que le membre de euh, coalition mais ñeneen nag bu fekkente ne joxewun wala après observation bi kii nag gis nañ ko noonu mais jàpp naa ne Touba sàcc élection moom kenn du ko fa refe normalement te sàcc élection rek war naa mën a jeex ci réew mi mais di alerter rek autorités yi nañu fexe ba nga xamante ne bi am nii mu continuer parce que ñun bëgguñu yàq waaye lépp lu ñuy woo nag mën leen sa fekk si parce que yaakaar naa ne depuis 2017 ma nekk opposition de gagné Touba 2022 ma nekk opposition de gagné Touba 2024 ma nekkaat opposition moo xam ma gagné moo xam gagné wu ma mais kiy gagné tamit dañuy xam ne député Touba lay